tasum xibaar ak politique seen diggante xat na lool ñenn ci taskati xibaar yi dañuy bëgg di am impact ni ñu yoree réew mi ñi ko yore itam faral di bëgg a impacter opinion bi ñoom ñëpp di fàtte public bi nga xam ni ñoom ñooy ñi ñu jiite. seen relation bi war dafa war a yem ci ñii ñoo yor réew mi ñooy doxal ñun ñoo yor xibaar yi ñooy doxal bu ñu soxlaa loo xamante ne ci ñoom la jógee pour leeral ñu laajte nañ ko ñoom bu ñu amee loo xamante ne dañu ko war a yeggee ci loo xamante ne jàpp nañu xibaar la ñu yeggee xibaar ci mujjantal bi moo melu kenn dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a jagleel askan wi. ginnaaw bi président Macky Sall yëkkatee ay kaddu jëmale ko ci journaliste yi ak ni ñuy defee lii di revue de presse te mu jur coow ginnaaw bi ko Babacar Fall tonto Bamba Kassé jàpp ni coow amu fi place. lu mënti am journaliste bi am na ci xalaatam te loolu suñu métier moo ko nangu lu ñu wooyee les genres d'opinion mooy muy commentaire muy éditorial muy yooyu. mais luy tënku ci xibaar la pour jafe-jafe yi am si métier bi warul tax ba journaliste yi nangu lépp li ñu leen teg mu jàpp nii dañoo war a jël seeni responsabilité comme ni ko yoon waxee. journaliste bu ñu koy wax nit la ko xamante ni dafa libre donc journaliste bi nga xam ne dafay liggéey structure boo xamante ne dañ ne ki ko moom homme politique la mais moom am na ay garantie yoo xamante ne charte bi jox na ko ko ko si des nag question de jikko la moom mooy xool nan lay doxale si élection yi ñu jëm muy woo journaliste yi ñu gën a moytu ndax ñu bañ a dugg si piège u politiciens yi